asalaamaaleykum mbokk yi mën na euh, may Serigne Mboup nekk maire de Pire. bon situation actuelle bi euh, ni ñu ko mën a xoolee bu dee dañ koy xool ci wàllu organisation euh, piir commune la léegi depuis communalisation intégrale maanaam ñu ngi ci première mandature bi loolu li muy wund moo di day nekk dëkk boo xam ne. dafay bari jafe-jafe day bari ay manquement ci wàllu équipement sociaux yu bari ay infrastructures sociales de base manqué yu bëri bari daal yu dëkku taax yi am te ñu yaakaar ni cosaanu Pire ak taxawaayam ci réew mi ak ci àddina bi ak nga xam ni ku nekk euh, musulman ci Afrique subsaharienne euh, daanaka rawatina Sénégal amal nga pil njukkeel pir amal na la aussi reconnaissance parce que ñooñu bokk nañ ci ñu yóbbu turam fu nekk tur bi nag bu demee ba génn àddina dañuy taamu bu nit ñi ñëwee fekk dëkk bi euh, xaw a niru lool loolu amul ci lool ci wàll boobu ndax manquement yu bari yi mais euh, am na jéego yu bari yu ñu ci def am na aussi ambition yu mag yoo xam ne am nañ ko ànd ak waa yëpp pour def ko ci loolu nag euh, buñ ko xoolee mën nañ ni ñu ngi ci yoon wu baax même si encore une fois euh, ci réew mu ndool ci dëkk bu bees euh, li manqué moo ëpp li ñu jot a def. éducation moom euh, affaire bu yaatu la surtout Sénégal li ci ëpp mooy comme ni réew mi mel Afrique mel ko ndaw yi dañu bëri foofu macha allah suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu sët yi bu dee dañ ko jël ci wàllu école tubaab parce que njàngu tubaab am na euh, mun nañ ko jël ci wàllu njàngu arab parce que am nañu école arab yu am réputation ak ay daara daara moderne euh, yu fa nekk mu nekk benn daara moderne boo xam ne ci booy ci dëkk bi waaye am na aussi daara fondation Xaali Amar Fall xam ni fu nekk la nit di jóge ba bitim réew ñëw di jàng si foofu ma rawatina ay xale ci jamono vacances yi mën nañ ko jël aussi ci alphabétisation parce que jigéen ñi ñëpp xam na seen matuwaay seen taxawaay ci kër yi ak seen dimbal ci njaboot yi te seen njàng ñu ci bëri jànguñu wala bokk seen njàng soriwul waaw loolu moom euh, bokk na ci màndarga Pire pire damay wax souvent ne pire c'est la mère des cités religieuses en Afrique subsaharienne parce que daara ji comme ni ma la wax 1603 la Xaali Amar Fall ak si fekk fa suñuy mbokk suñuy maam mu def ko foofu 1611 mu def euh, jumaay ji loolu nekk tey jii boo ko xayma daara ji war na am ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci at jumaay ji am ñeenti téeméer ak euh, juróom-benni at donc loolu euh, moo wëy ba léegi mu def euh, tey jii famille religieuse bu nekk Sénégal ak Afrique subsaharienne bëri na ci parce que dañuy wax Tombouctou sax mais Pire moo jiitu tuuti tuuti jàng nga alxuraan rawatina suñu famille yu mag yi euh, ñu nekk waat suñu mbokk dem demee ñi nekk Sokone waat suñu mbokk yi nekk Medina Gounass Touba Tivaouane Yoff Layène Niassène ak. Euh, waa Louga suñu mbokk suñu Abbas Sall Fuuta nag moom 35 almam yi foofu la ñu jàngee ñoom Thierno Ousmane ñoo ñu mën nañu leen a lim mais surtout euh, dafa nekk dëkk boo xam ne loolu dafa feeñ ci ñun nag euh, parce que piir vraiment école comme ni ma la wax sama école boobu ñu lay wax école 1 1912 dafa bëri kàngam yi fa jàngee. Mm-hmm. damay am mbégte di wax ne suñu màndarga ñun diine la. ba li mu doon xalaat ak université bi fu mu àgg ak fondation Khali Amar Fall mm-hmm. ñu def benn forum sur l'islam boo xam ne day indiwaat cosaan bi ambition mooy dajale waat waa Sénégal ak Afrique de l'Ouest parce que fii ba Tchad fii ba Burkina fii ba Niger am na famille yu mag yoo xam ne dañuy ñëw ba léegi rawatina Gambie nga xam ne ay kii lañu ñëw bokk si ci euh, ñu ñu ñu delloo diine waxtaanewaat piir parce que euh, wax nga ko léegi Thierno Ousmane Bal ci ñi jëkk bind constitution la démocratie yàgg na fi euh, vivre en communauté yàgg na fi dimbalante yàgg na fi demlante yàgg na fi et loolu euh, dama bëggoon ndem si yàlla sëñ Moustapha ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana moo ñi mu fekk ñëpp liggéey na ci liggéey boo xam ni son excellence Moustapha Cissé liggéey bu am solo la ba tey jii notoriété pure su le plan international kenn waxatu ko donc li gën a yombal sunu diggante ak ñoom mooy dañ di ay mbokk pure dafa nekk dëkk particulier boo xam ne famille boo dugg mën nga fa euh, takk soxna wala nga maye fa soxna wala nga fanaan fa wala nga ref moo tax aussi politique jafe fa day yombal mais day jafeel parce que bu ñëpp nekkee say mbokk dafay jafe donc yàlla def aussi ñu bokk même vision xalif bi bu ngeen ko gisoon loolu leen di wax ñun sax pour ñu nekk ci mairie bi euh, dañ ci am ndigal ndigalu sëriñ Moustapha ndigalu sëriñ Pire ndigalu suñu famille yu mag yooyu yëpp parce que bu dul loolu du ñu sax di présenté wu pour présenté wu dañ ne dañu ñëw pour ñu nit ñu bokk ci famille bu mag boo xam ne nii bu fa cosaanoo la ñu ne nañ ñëw jàpp ci mu nekk nag ubbeeku goo xam ni euh, romb na parti politique yi rek waaw parti yëpp am wante doxalin bi ci suñu démarche personnelle inclusive mais aussi ouverture bi ñu am pour woo waa Pikine ñëpp jàpp ci donc loolu moom daf ñu gën a yombal ñun ñoo amal njukkal nag diine ji pour que Pire jëlaat mandarga boobu parce que programme cité religieuse yi ngay gis sax euh, damay wax souvent sama xarit yi nekk ci yi ñu bokkal pouvoir dinaa leen euh, tur li ñu waroon a tàmbalee waaye démarche président bi aussi démarche bu cohérente la parce que dafa jëkk diine yi léegi bu am nga boo jëlee Touba jël Tivaouane jël Ndiassane jël Yoff Layène jël Médina Gounass daanaka jël nga musulman yi Sénégal yépp parce que ku lu Tijaan murit nga mbay xaadir après nag ñu jàll ci beneen fas te loolu mooy inclusion ba ñuy xaar ñu nit suñu wàll ñëw ba infrastructure équipement yi gën a gën a am solo bi ñu ci jógee nag ma ne jigéen ñi loolu doyul waaye départ nañ leen jàppale ci laa wuti man ay moyen ak suma ay yenn xarit ma def benn fond ver loolu dama ko bokk ci bokkoon ci programme yi ma am fonds vert maanaam dañ leen di lebal xaalis boo xam ne euh, du am intérêt maanaam dina am intérêt waaye intérêt yi man maa ko jëloon ni sama bopp ma njëkk a génne cinquante millions ci at mi ñu ma njëkkee def maire joxe ko jigéen ñi ay groupement de femmes cent groupement de femmes ku nekk am cinq cent mille euh, léegi intérêt yeeg yooyu yi ci war yépp ak ubbi compte ca Euh, caisse d'épargne et de mutuelle bi ñu ko doon def man ma fay ko ci lu mat a war a mat presque dix millions bi ñu ci jógee ma ne jigéen ñi fay macha allah wane seen kii loolu objectif bi mooy ku nekk amoon loo def waaye surtout xëcc leen ñu dem ci système bancaire bi am compte xam nga bu ñu la lebalee noonu ngi liggéey mu mat boo dellu see leb sa tur sax mun nañu la lebal. sécurité bi moom des na. parce que day train bi day jàll waaye passage à niveau nu mu amee woon nga xam ne dañuy ñëw ñu yëkkati loolu defuñu ko fa bon ñu ngi koy dox nag ak waa MDL man sama bopp bind naa leen ko maire dem naa fa wax ak ñoom euh, bokk na ci seen programme ñu defal ñu fa benn passage euh, sécurisé boo xam ne bu train bi ñëw ñu mun ko wàccee parce que xam nga clando yaa ngi jaar voiture yi borom jakarta yi ak oto yi loolu problème sécurité des na am na foo xam ne aussi dëgg-dëgg comme rek xam nga ñun Afrique ci ak sunu nit ñuy dëkkee am na kër yoo xam ne ni ñu ko tabaxee dafa jege raay bi trop parce que emprise raay bi ni mu woon comme raay amatul saxaar ñëwatul woon rek nit ñi dañ ñëw dëkk loolu aussi euh, problème la boo xam ne xam naa ne bu train commencé waatee ni ñu ko bëggee dinañ seet ak ñooñu nu ñu mën a def ba trouver solution maintenant pour sa qui est tali tali moom. li euh, liñ ci am li liñ ci bëgg amaguñ ko waaye am nañu tuuti quand mm-hmm. am na sumay xarit yu fay ñëw ne ma yéen li ngeen am ci tali euh, maanaam waaw déjà. dugg na bu baax mais euh, man sam bopp am na programme bu ñu am boo xam ne 4,5 kilomètres la. Promoville ñëw na ñu ba natt ko ba identifier ko depuis deux ans ñu ngi ciy topp am ñu yaakaar ni 2021 bi parce que 2020 lañ ko bëggoon def. waaye xam nga Covid bi moom dafa wàññi projet yu bari am nañu yaakaar ni 2021 dina ñëw bokk boole booleetul ak fracas yu nga xam ni beneen projet la bu war a ñëw jàppale communes yu mel ne suñu yos yi euh, donc 4,5 kilomètres Promoville bu ñëwoon moom dina densifier vraiment dëkk bi ba nga xam ne nii non seulement day indi assainissement parce que xam ngeen Promoville moom day defaale assainissement ak aménagement mais day indi ay tali. Euh, aussi PUDC euh, on est éligible am nañ ci projet ak programme yoo xam ne ay piste lay doon am na euh, tracé nañu ay principal dëkk ñi nga xam ne dëkk yu mag yi wër Pire ay village yoo xam ne ay village centre lañu pour ñu fexe am ay piste pour que dem beeg dikk bi gën a yomb mbay mi nekk ci biir gox yi goxaan yi mën a wàcc si Pire mais aussi mobilité nit ñi nga xam ne Pire la ñuy fajoo si di fi di mooy seen capitale commune Euh, dem ak dikk bi gën a yomb yooyu nag xam nga projet yoo xam ni état rek moo koy def euh, da ngay bokk ci programme yi di góorgóorlu rayante euh, mais président am na vision boo xam ne je pense que su Promoville àggee fépp ñun dinañu gën a gën a rassuré ci côté boobu. waaw santé aussi xam nga wér-gu-yaram ak éducation ak cet environnement mun nañ ci wax ñoo bokk ay maam. léegi santé ñun waa Pire loolu moom dama leen di njukkalaat ñëpp euh, maternité boobu ngeen gis jigéeni Pire yi ñoo yeewu ni ñun dañuy defar suñu bopp amoon nañ dispensaire nag depuis euh, début indépendance yi mooy mooy poste de santé bu mag bi euh, mais jigéen ñi ñoo ñëw ni dañ bëgg a am suñu kii bopp ñu cotiser fukki dërëm fukki dërëm ñun ñëpp ñu jàpp ci doomu prix yi il y a une vingtaine d'années def benn association bu tuñ tudd booloo liggéey Pire moo tabax loolu ngeen gis ñu délibéré leen 4 hectares yoo xam ni muré nañ ko entièrement mu nekk maternité boobu nekk initiative bu mag après nag état ñëw je crois en 2006 premier ministre bi tey nekk président moo ñëw leen boppam inauguré ñu ko affecté ñu fa sage-femme et puis état équipé ko quoi. léegi nag ñu continuer euh, tabax nañ fa léegi ci comité de gestion ba fa nekk. ak nu ñu ko gérer benn logement pour euh, pour sage-femme bi euh, man sam bopp aussi dama boole woon santé. ci sama programme. ma gis ni cancer u jigéen ñi surtout dafa sonal ñi cancer du sein ak col de xamuñu ko ñu bëri mais ginnaaw paludisme bokk na cancer u jigéen ñi li rey ci li gën a bëri. ci lañ defee nag euh, ma outil partenaire ñu defal ñu centre de dépistage du cancer boobu ngeen gis du col muy jamono yi ñu koy def booba naa mooy deuxième centre bi nag Sénégal jigéen ñi daan fay fukki junne ak ñaar léeg-léeg juróom-benn junni léeg-léeg lu ko ëpp ndakaaru pour mën def dépistage parce que lépp a ngi ci dépistage faju baax na waaye fagaroo gën euh, voilà donc man def ko foofu jox ko état dugal ko ci patrimoine u état parce que noonu lay demee benn fondation benn institution financière moo ñu ci jàppale woon euh, professeur Kassé ñëw dugal ko aussi ci base de données nationale bi nga xam ni suñuy données day dem di ñëw mu ñëw taxaw ñu formel ñu personnel bi gis ngeen am nañ fa matériel matériel sophistiqué quand même ak laser et tout euh, mu ñëw muy sant bu am solo vraiment ñu tagleloon ko les région de Thiès Diourbel et Louga pour que seen nit di fa ñuy def ci aussi yërmande di fayeku def na 3500 ou 4000 pour def euh, dépistage waaw donc ñu koy profité ci seen antenne di ko wax Sénégal yëpp ku mu jafe Ndakaaru mbaa feneen mun nga ñëw foofu parce que cancer moom bu xasee ñëw day kii e vraiment loolu bokk na ci satisfaction ñu gën a am parce que bëri na man si ay jigéen yu may àndal di liggéey ñu may jàppale suñuy mbokk ñun suñuy soxna ñun ñi suñu kii waaw pur juróom-benn fukki dëkk moo ko juróom-benn fukk man bi may nekk maire euh, ci wàllu ndox am na dëkk yu bari yu amoon accès à l'eau rarement moo am extension mais robine bi ñëw na quand ba ci digg bi parce que il a quelques années boobu président mii moo nekkoon ministre de l'hydraulique moom jàppale woon ni ba ñu am 34 kilomètres 36 kilomètres ndox ñu tasoon ko ci dëkk yooyu euh, bi ñu ñëwee yàlla suturaal nañu tey jii may wax ak yow 60 villages yi ñëpp am nañ ndox Ngewar dëkk bu jege Pire la man maa leen yóbbu robinet foofu Euh, waa bokk nañ ci programme courant bi boobu aussi à part Pire ñetti dëkk rek ñoo amoon courant mais yàlla defal nañ sutura ñuy def di def ba fi ñu toll tey ak liste bi nga xam ni validé nañ ko te ñu commencé ko def euh, peut-être entre vingt-huit et trente et war nañu am accès à l'électricité ñuy xaar nag. Euh, accès universel bi nga xam ni deux mille vingt cinq la pour ñëpp accéder ndox mi aussi def nañ ci extension yu bëri dëkk yooyu ko amoon dugal nañu daaw ci trois kilomètres ci dëkk yu mag yu ñuy wax jëgëj mbaraglu ak kii yoo xam ne dañ ko tas parce que sancaan yi day bëri mais robinet bi daf leen di sori nit ñi dañ daan dem di rooti ci robine central soo demee dëkk boobu ma lay wax Mbaar Njaay Mbaar Jóob sooy dugg Pire kër yee fa nekk daanaka këru almadi yi ëpp <laughs> ëpp ko dara mais il y a quelques années amuñu woon ndox amuñu donc dañ def loolu ba pare tas ñoom it dafa leen extension ku nekk mën a xëcc ndox sa kër loolu c'est un programme très important am na dëkk yoo xam ne ñun ñoo jël suñu doole bopp euh, yoo xam ne doolee mairie bi la yoo xam ne parfois ci sa poche la comme dëkk bu mel ni kaa euh, pour que kër yi mu àggul woon mu àgg fa donc ñu ngi liggéey ci ndox moom extension euh, maa ngi wax ak directeur général SONES pour mu jàppaleñ ci yeneen kii yi daaw def nañu à peu près trois cent branchements yoo xam ne dañ ko defaat pour nit ñi accéder ci biir village yi ak quartier yu bees yu aussi am na quartier yu bees yoo xam ne amuñu woon ndox amuñu courant parce que dëkk bi day màgg. ñooñu aussi couvrir nañ leen fi mu nekk. je pense que ndox bi amatul benn problème courant bi aussi am nañ accès nga war bokk na ci dëkk yi courant demagul mais comme li ma leen wax rek may ñëw dama leen noonu amu leen amu leen courant danañ fa indi ndox ndox mi ñëw na piste yi yooyu ma lay wax ak PUDC am na boo xam ne dafa leen di traversé. courant bi aussi bokk nañ ci liste bi ma yoree ak njëng ay beaucoup de dëkk religieux ay njéey ay yenn dëkk yi bërki démb rek euh, war naa fa dem fan yi dëkk bu ñuy wax kaa ak kër njagambay dëkk yu mag ñooñu aussi noonu lañ meloon amuñu woon ndox amuñu woon courant ñu ne leen nañ leen defal extension ndox bi danañ fa indi courant ñu fa indi piste ñoom yàlla def na seen piste ñëw na seen courant tàkk na fan yi war nañ fa dem sax visite ko et donc euh, voilà objectif bi mooy deux mille vingt cinq daal village yëpp ñoo di leen ndox ak courant ba pare PUDC jaar ak piste yi waaw loolu loolu obligation la ci ñu ambition la aussi xalaat nañ ko rawatina xam nga yéen dem ngeen ci jumaay ji ba gis bant boobu bant boobu histoire am moo di tubaab yi bi ñu gisee conscientisation masse yi ni mu amee pire diine ji ñu leen di jàngal ak njàngam l'islam bi nga xam ne euh, dafa mel ni bomb bu yàlla sànni muy wëlbati nit ñi di leen yee di leen moom moomle seen bopp di leen gëmloo seen bopp mais tere leen aussi lu luy violence xam nga colonisateur bon buggul tubaab loo xam ne contrôlé wu ko moo taxoon ñu nii bon mënuñu leen a guerre mënuñu leen nii parce que gisuñu fa arme gisuñu fa kii waaye arme bi ñu yor mooy téere yi nan la ñuy def ba taali ko loolu moo indi ñu gasoon euh, ñëw taal bibliothèque bépp ñu jël livre yi fa rëcc bant boobu mooy li ci jotoon na rawale ñu gas leen foofu suul leen dafa bant boobu nga xam ne ba léegi ëpp na ñeent téeméeri boo ñëwee di nga ko xàmmee. Euh, donc ñu gën a góor góorgóorlu gën a gën a gëm suñu bopp euh, réew mi am na ay perspectives loolu man mën naa ko wax parce que wàll bi may liggéey euh, malgré coow yu bëri yépp benn guttu pétrole génnagul kenn lekkagul dërëm ku fi bokk ku fi bokkul dërëm bu jóge ci pétrole ak gaz te looloo ngi ñëw indi yeneen. te Sénégal jëlul ndàdd ci Afrique boo ko xoolee te ressource bu bu am solo bu rëy boo xam ni impacté na ko génn gu fi euh, réew moo xam ni nawet bi ñetti weer la la donc euh, te tey jii nii foo dem ci Afrique euh, à part ay Maghreb ak Afrique du Sud bu dee tali kenn gën lewuñ ko su dee njàng suñu université yi kenn gënu ko su dee démocratie ak stabilité kenn gën lewuñ ko donc ci réew yi compté lañ bokk kon nag bu ñu amee aussi une jeunesse comme yéen euh, ngeen nekk ndaw nekk force je pense que yàlla mun nañ kii daal ñu gën a gëm suñu bopp te gën a généreux te gën a muñ lente euh, yàlla defal ñu sutura ba réew mi àgg fi ñu bëgg mu àgg fa